Sénégal di ngeen leb bu baax parce que Mame Boy mi fi nekkoon dafa ne président Macky Sall bu ñëwé du fay salaire yi nak ma sha allah boobu ba léegi ngi fay salaire yi kon di ngeen leb mais nak sant Yalla bu baax parce que lebu leen di ko luyee jet privé di wër bañ tuddee len ñombor da ngeen na leb def ci talib ci ci ci pisi yi leb wuti ndox leb jàppale jigéen ñi leb yok emploi kon nag leb leen ba suba te nak nag lebu bor bu ngeen mënul fay waye nag ñi nga xamanteni dañoo leb organiser fees man fekk nañu fi loolu démb la leb or yóbbu monument de la renaissance fekk nañu fi leb di pasar pasare di yàq te loolu jeex na fi tey kon nag leb leen ba suba monsieur le ministre ñi ngi jéggalu bu baax ci yenn comportement yi suñ collègue député yi yoon loolu ñu ngi koy jéggalu bu baax mais ngeen xam ne ñooñu jekkuñ sax dañoo rusu sax pour nekk député parce que nag nit bu respecté wul sa bopp respecté wul assemblée nationale foog naa ne kooku jekkul tey ñu koy def député mais nag en tant que suñu collègue ñun ñu ngi leen di jéggalu ci comportement yooyu nga xam ne yor nañ ko fi lu leen neex la ñuy def ñooñu jekkuñu sax si nekk mbóot